salle bi gars yi. waaye seet si nga xam ne def salle heure bii naaj bu tàng. ma jox ma ma loolu de. mais yaa ngi si formule. waaw yow luy loolu mais sax yaa ngi ñàkk nii teg ci super. Oh. super forme. ci saa waay mais dee si booli jël avance yi bàyyi yow ku xiif àllum nen nga naan ko avance avance laay wër. avance ngay wër te bu la joxee avance nga delloo ko. avance laay delloo. booy Tëngéej am na ku ma mën a dellu avance foofu. mooy xam nga Gamou Gueye. Gamou Gueye Tëngéej ku dul Gamou Gueye su ma fa duggee du jóg. nga <laughs> naan ma ay Gamou Gueye. kooku mooy kan. Gamou Gueye delloo avance am yow. demal ma Gamou moo la wax loolu. ko si réseaux sociaux yi nga xool. man réseaux sociaux laay dugg. taluma réseaux sociaux je m'entraîne dire. kon ku dul Gamou Gueye bu taxawee sama kanam ma leb ay fanaam boo amee connexion duggal nga xool. bàyyi wër lu nooy jëlal si booy yi nga bëri. man dugg xoolal dugguma réseaux sociaux jéem a vérifier Gamou Gueye moo la wax loolu. Gamou Gueye mi ngi yàq sa der xam naa nu may def man. këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket bi. waaw loolu ay wax na rek. toogal foofu xaar. gàmmu gay laay seet. gàmmu gay ah gis nga ko de waaye gaalam mu ngi ne la. gaalam waaw mun nga ma wan gaal bi. gaal bële la mu ngi ne la. mooy gaal bële. waaw bële mu jëm si ginnaaw la. mu jëm bële. waaw amul problème. ok jaajëf waay. jaajëf maa ma seet ko foofu. waaw bëggee waa ngeen. jaajëf jaajëf. jaajëf. Ah, boo ana gàmmu gay. gàmmu gay dem na. fan la dem. dem na gàllam. xanaa du bii mooy gaalam gaalam la kañ waaw kon anamu mun nga ma wan gaalem waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu gay eh ana gaamu gay laa Gamou Gueye mooy wër si dëkk bi naan man dañ maa jox a ba pare taxaw leen sama yóbbante damaa bëgg mu yegg bu Gamou ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. yéen añ leen seen añ. nekkal góoru yàlla waay yow. eh tooñoo leen ma gàmmu moo ma tooñ añ leen seen añ bu ñëwee ngeen ne ko maa ngi koy wër ci dëgg bi. Gamou Gueye Misar mais yow mbër mi bi muy ñëw fi di yëngal gaale bi xam foo newoon yow booy mbër bi dëkk parcelle te fa mbër mais ah, ñëw na fi ruube na kër gi yëpp ñëw na fi ruube na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi jàppee da koy teg bokkul sax non gis ngeen gis ngeen bokkul bokkul sax am mbër mu mën gàmmu gën fan la ko teg yow la ngeen wax yow di comédien bi tay comédien mais yow est-ce que yow gis nga yow est-ce que yow gis nga yow dafa am mbër yow non non non war na yàlla koy daan non non man jàppee dafa def teg attention war na yàlla ci da koy daan war na yàlla def erreur boo xam ne ni yaa ngi daan sport man la koy daan da koy daan mbër mooy mbër ku nekk la yow mbër tamit la fi mu lama xam nga lama waaye ci li mu wax sama gaay kii day dégg la gàmmu gën ak dafa mbër loolu du lamb ma ne ko loolu du lamb loolu combat la combat. loolu combat la combat bu mu nekkee combat. combat la bu mu nekkee combat lan. parce que combat bi taxaw na. le 24 décembre bii. Mhm. 2022. Mhm. Tapha Mbeur ak Gamou Gueye bëri ci arène nationale ak waa Yaram Art Events. dinaa toog sama kër jàkkaarloog seen affiche seetaan ko. du yow sa kër ngay toog. waaw man stade laa jëm. kon dinaa la woo téléphone suba teel fa la fekk. dinaan sama yu sedd. loolu yëpp leer na le 24 décembre la incha allahu arène nationale mu war a nekk en direct sur seen affiche. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci comme ni ngeen ko xamee nag jàmbaar production moom moo ñëwaat ginnaaw fan yi passé bi mu ñëwee gisoon ngeen li mu andi woon ren ci saison bi mu nekkoon mbaa bu mag événement la njëkk a indi mooy Siteu Papa Sow yàlla dogal ñu bëre ko mu jeex si jàmm jàmbaar ne du yem foofu day tamit gën a wàcc gën a laalaat mbër yi nga xam ne xaw nañoo féete suuf tuuti dem andil ñu ki nga xam ne nii moom mooy Mod Jabu Yoff ak Dame Sène ñu foog ne fa la ñuy yem ñu dolli ñu ki nga xam ne nii tey moom moo di gargade bi nga xam ne amateurs yi namm nañ kombaam ak ambulance bu Thiès bi nga xam ne moom tamit bu yàggu loo njaay la mujjee def fi jaloor yi mu fi jaloore yi mu fi def jóge Thiès di doomu Thiès tey nag loolu lañ leen bëggee présenté fi nga xam ne nii moom moo di au niveau di CNC euh, wala sax arène nationale mu mel ni nag menacé yaa ngi toog Père Babou ku ne xam na ne moom moo yore Garga 2 ñu koy nuyu muy kilifa gu baax a baax di la jaar di la jàmm di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Pape Mbaye jóge ba Thiès ànd ak Matar Mbaye waaye Saru Fall tamit mention spéciale parce que gis nañ ni muy taxawoo jàmbaar production di nuyu waa jàmbaar yëpp nag di jël nuyoo bi di ko jox Mansour Ba ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal Papa Gueye assurance mi toog tey xam ne moom moo koy représenté tey jàmbaar ah su ma limee dinaa juum góor a yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ak tamit di nuyu Papa Sow ndax ndax kenn mënta wax jàmbaar te doo ko wax kon nag ñaari mbër yaa ngi nii damay njëkk dem ci ki nga xam ne nii rek moom moo di Garga 2 wala sax ma tijjee suñu père Babou Assis tamit maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar père. Ah, moom kay. waaw kon kaay nii kaay nii. doo jóg de. waaw kilifa la. bàyyi bàyyi ñun wax na dëgg. mag la fii lu jot dañu ngi lay ziar. maa ngi leen di delloo ziar bu baax. Uh-huh. sa mbër bi di Garga de yaakaar naa ay bëri na fi kombaam uh, avorté na ñaari yoon suma juumul tey nag waa jàmbaar ñëw jox ko ki nga xam ne moom mooy ambulance ngay kilifaam yor ko tamit di kilifa ci làmb ji ban kàddu ban kàddu ngay sànni. d'abord xanaa di nuyu. mbooloo teew ñëpp. muy journaliste. muy sama bokki menacé yi fi toog maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di nuyu aussi waa jàmbaar parce que dafa mel ne tu tur tur bi wuyu na borom parce bi ñu duggee ci làmb ba léegi xooluñu li mbër di am xooluñu li menacé di am dañu ñëw pour pour dolli làmb ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax te xam ne bu ñëpp meloon ne jàmbaar tey yaakaar naa làmb dana gën a jëm ca kanam soxlawuñu dara mbër mi soxlawuñu daray menacé bi dañoo ñëw rek pour defar seen alal di ci dem seen doole di ci dem seen temps di ci dem kon nit ñu mel ni bu ñu ñëwee nit ñi dañ cee war a téye seen loxo bu baax a baax maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax pas affaire garga de ak booy bale dëkk Thiès nu mu tuddati ambulance combat la combat nu mu mën di dollu combat lay doon xanaa di ñaan yàlla mi am ndam yàlla na ma yàlla jox ndam yàlla na Garga 2 ki nga xam ni mooy ambulance bu Thiès jël bu set wecc di ñaanal Pambay bu boobaa mu moo am xolu muñ te teel a mën a ñibbi Thiès rek kenn du ko topp dañ dañ koy bàyyi mu ñibbi Thiès ah. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm aussi CNC uh-huh. di di ci di jiital nuyoo bi Bira Sène mi nga xam ni moo mooy kilifa ak CNC uh-huh. di sama xarit uh-huh. di sama rakk ñu ànd lu yàgg avant muy nekk président CNG. ba tey bi buri yi xawee am nangam ak nangam bi mu ñëwee it daf ko seeral ba mu sedd en tout cas maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jox ñëpp rendez-vous làmb ba kañ la le 18 18 euh, juin garga 2 am ndam ñu 18 18 mai garga 2 am ndam ñu ñibbi ci jàmm euh, ambulance ñibbi ci jàmm ak i bokkam nun ñu ñibbi ci jàmm ak suñuy mbokk yaakaar naa kuy kuy bëreeg sëñ Basiru moom daanu rek ah. loolu moom amul leneen luñ ci wax ba bés ba incha allah bu soobee yàlla jërëjëf kookooy bu dégg ngeen li mu wax léegi ma dem ci menace wu am euh, ambulance muy Pape Mbaye ah euh, Pape Mbaye maa ngi lay ziar waaw salaamaaleykum assistance bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu dee reporter wala muy manager wala képp ku yëngu ci làmb mm-hmm. ñu ngi suñu kàddu di leen di nuyu président Bira Sène nu fekk si mm-hmm. ci këram mm-hmm. di nuyu suñu papa Basirou Babou mii nga xam ni yàlla dogal na mu yàgg ci làmb lool yàgg ci yoon yi demul mbërëm demul demul ay mbërëm demul Père Babou moom Basirou mais nag ñu koy ñaanal bu baax a baax am na yéene yàgg na ci làmb am na teraanga ju ne ci làmb waaye nag làmb xamul ni garab la goo xam ne day nit ñi dañuy yéeg ku yéeg ba ca kaw mënoo dem da ngay wàcc ci suuf keneen ñëw yéeg mm-hmm. mooy sababu moo jiite woon ménage yi yàlla dogal na ñeneen ñëw mbërëb mi mu ko fonke fal ko bay ñaan li muy ñaan ñu foofu lañuy teg suñu bët ba adversaire bu ñu proposé soxla ko di wër jàmbaar am yaakaar ne garga mi garga de mi jàmbaar la moo tax di jël ko ndax ambulance du mbër mu kenn di présenté ci Sénégal lu mbër di def ci làmb rek def na ko ci làmb su dëkkoon fii di fi yeewoo nag ni passé na dimension bii mu toll ba muy dugg dakaar Dakar yombul du mbër mu kenn jaarale ci autoroute à péage ci rang-rang bii la jaar ñëw di ko ñàkku ba am li mu am presse jaayu ko kenn wanewu ko moo wane boppam ci ngorom ci jomam ci dooleem ak mën a bëreem bëgg si fi mbëgg si ci làmb moo tax tey jii ñu am yàqiinu ni Garga 2 mii mënuñoo teree egg fi nu bëgg a egg ci làmb gëm-gëm boobu lañ ko jëlee du moom du kaneen man mii la ak ñu nu bokkal muy estafam parce que nee nañ ci làmb ambulance ay bëre yenn adversaire yi dootu ko defee ci àdduna loolu day bëree ku ñëpp d'accord ne war naa bëree ak moom ci Sénégal gépp nangu nañ ni Garga 2 mbër la champion la boo nga xamante ne li mu def ci làmb wax dëgg yàlla bëgg nañoo bëre ak moom ndax ñun kenn mayuñu chance nag ci waaw lu leer laay wax vingt combats def ñetti défaite la ci am ci carrière am 21 la sax benn bi sans verdict la mooy digganteem ak laa laay Pythagore 2009 te Thiès kon champion bu mel noonu bu ñëwee fii waa Ndakaar war na loo xam ne mbër dëgg ñëw ci dëkk bi ñuy sant nag label bi nga xamante ni moo décroché combat bii muy jàmbaar ndax làmb moom ku ci yokku rek da ngaa wàññi te ba duggee ci làmb ñoom ba nga ni yokk teg làmb rek la ñu gis ndax ñu mel ni moom moo am Thiès comme Sidi Diakhaté produire ay rakam ay doomam ba nu ñëw Dakar ba xam leen. moom mu génn fii ci parcelle Gaston Mbengue nekk fee keneen nekk fee kon ñun njabootu làmb laa wax ñun di ay ménage rek ñeneen promoteurs yi ñëpp la ñuy ñaaral kenn ku ci man ren rek bu déwénee nga man lu ko ëpp li ci des nag mooy dañuy jublu ci li ñu fi indi mhm. li fi indi ñëpp ñu wax ci wax ji li ci des nag rendez-vous bi des na làmb ji fi ñu toll des na fii ba le 18 mai la ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ni mu amee yéenee daan ñu la wax mhm. noonu laa koy daane ba war ci kawam fii ci arène nationale génn romb leen dem ñibbi ci kàttanu yàlla jërëjëf loolu neex na léegi kon xaar du ma sori naa ñëw ci mbërëm rek micro yi man ma koy non micro yi dama koy teg bi yoon de sama gaay mu jege Matar da ngay wax nag ca kaw da ngay jege micro yi te wax ca kaw. aja ambulance. waaw yaa ngi noonu micro yaa ngi noonu. Garga nga jël lan mooy motivation bi tax nga jël Garga 2. bu nuyoo Sénégalais yi lay nuyu ëxlu lamb gi yëpp. Hmm. nuyu waa Thiès nuyu waa Ndakaaru yaa ngi dégg Garga lu tax ma jël ko dafa bokk sama yoonu làmb yàlla waxoon man ak moom dañuy daje mënuñ si dara man mënuma si dara mais damaa def sama preuve ba ñëw biir Ndakaaru di bërëg samay morom ba ba jeexal leen war a dem nag sama catégorie yaa ngi dégg moo tax ñu jox ma Garga 2 père Babou nag ma dégg naa ko li mu wax si biir yi wax mais am nga mbër de hmm. billaay wallaay am nga mbër du ma waat mais am nga mbër da da la gën a xam loolu. bu baax. waaw. li ma déggoo li ma ko wax. na entraîné te xam ne mbër mi du yaafuus mbër mi saa yu simee ñu xoolaat ko ma nga maa xeeb si jëmm nii si yére mais bu ñu simmeeku ko nga xoolaat ma waaw bu baax teg naa seeneen sama bët laa la loolu gargada yàlla xam na loolu teg na teg naa feneen sama bët pour gargada mii parce que ñu bëri mel ni Garga de su ma naree nekk fii di làmb di bay bayal naan damay kii moo dem liggéey xooli leneen làmb laa opté làmb moo yàq sama lépp kon lu may xaaj seen kuñ ma jox damay bëre moom yàlla bu ko tuddee maa moom dañuy bëre bu ko tuddul du ñu bëre te maa ñaan yàlla suñu borom yàlla ma yàlla may ndam ci kaw waaw kon lu yomb sax hmm. waaw mën ndaanaan la mais daa fekk kullu ndaanaan fii. mais dafa fekk kullu ndaanaan fii ku Cees gi yëpp di bàyyi xel surtout waa Dakar. waa Dakar bu baax. yow du ma la wax xam nga sama sama premier sama dernière sortie fii gis nga li ma leen. damaa duy stade bi ba li si biti sama li si biti moo ëpp li si biir stade bi. te Thiès laa jóge mbaru gox la de Thiès laa jóge rayante ba egsi fii mais ku ko yombal ko mbaa mu koy nax. moom mii waaw. loolu man amul lu ma siy wax. yaa ngi dégg loolu man loolu lu ma siy wax lu ne sama waa manager ñoom ñoo koy wax man amul leen lu may wax lii moom fi indi. Garga 2 moom fi indi moom laay signature voilà. kon ñu dem ci Garga 2. gars yi jéeglu nag micro yi xaw a bëri. te wax ca kaw. ñuy waxee da ngeen di da ngeen di waxee noonu. aja garab gaa yaa micro yaa ngi noonu sénégalais yaa ngi noonu rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi maa ngi ñaanal samay ñaari waajur yàlla na ko suñu borom yërëm te xaare leen ci àjjana firdaws te ñaanal sama ñaari xarit yoo xam ne dañ fay jógee ku ci mel ni Ramdan Moussa Balague di ko jaale seen famille yëpp di leen ñaanal yàlla na ko suñu borom yërëm te xaare leen ci àjjana firdaws ak mboolem jullit ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di nuyu nag presse bi nga xam ne ñoo taxaw fii yëpp du nuyu ménagère ambulance du nuyu sama adversaire ambulance di nuyu waa jàmbaar production bi nga xam ne ñoo taxawal combat bi. du nuyu na sama ménagère Basirou Babou ñoom grand as bépp ménagère bu taxaw fii rek maa ngi leen nuyu du nuyu staff jàmbaar production bi yëpp. di wax euh, ambulance man xalaatuma woon yow làmb nag di nga toll foo xam ne ni boo say morom lu nga jël da ngay wàcc may say rek sens waaye ambulance lépp looy jaay ci làmb maa la mu dee bëre maa la ko bëre bu dee sañ-sañ maa la ko bële te bu may mbokk waaw kajoor kajoor la may kajoor kajoor li ma koy wax moom ko gën a xam du nuyu waa di nuy du nuyu waa kajoor du nuyu waa kajoor gépp gi nga xam ne falaa laa juddoo yaroo fa waa Ndande Fall waa Cité Fadia waa Parcelles Assainies gi nga xam ne falaa laa dëkk du nuyu waa Cité Fadia gi nga xam ne falaa yeewoo di wax ni seen doom seen rakk am na combat na ko ñëpp waaj le 18 mai la incha li ci des bari na li ma mën a wax mooy combat bi képp ku la wax ne la day yomb ci yow mu ngi lay nax loolu moom teel naa la wax nga bàyyi ci xel. mais boo nee dégg mu ni moo moo moo moo moo dàq bëre moo ëpp doole ndax ne day indi état ci mën la dëppee. kon mu ndax ñi ma bëreel bëreelagul ak ñoom. dañ koy ñaanal rek yàlla defal ko wér. ak fekkee ak tal bala 18 mai mu ñëw ma daan ko jël bu set wecc bu amul benn werante hmm. incha allah. loolu a approché làmb ji li des bari na. jërul jërul jërul jërul yàkkamti. suba li may wax mu ngi koy dégg man li may li muy wax maa ngi koy dégg. su bëggee tontu mën naa ko jox micro bi mu tontu. kon ma def nii man. na looy jaay moo la si li mu foo. ñi mu bëre bëree woog ñoom. ñi mu seqal bés seqal ñoom bés. sama sama ménagère wax na ko léegi. waaw nit boo demee dem dem dem ba nga xam ni carrément yow mi kale nga. da bàyyi sa sa moroom yi nga xam ne mën nañoo dem ñu dem. daa kale. dafa kale dafa kale. kale kàkk. léegoo li ma la wax yow mii yow mii li nga yaakaar moom. parce que boo nee da ma sax. déggoo li ma la wax yow yow déggoo li ma la wax. fan lañ xamante yow. xam nga xam naa bu baax. def nax nga sa bopp. wallaay xam bu baax. xamoo lu la neex. déggoo li ma la déggoo li ma la wax. déggoo li ma la xamoo ma doon dégg li ma la xamoo ma. yéen a doon bokk dal bokk dal rek. mais xamoo ma ba léegi. non non xam bi mooy xam bi mooy lan. waaw xamante ne ñi Matar Mbay ak lii loolu la. mais moom lu tax mu xam sama tur moom ñëpp koy tudd sama tur ñëpp xale yu ndaw yi sax boo leen ko waxee Dakar ñu wax ko. yaa ngi dégg. que moom xam nga turam. kan non man loolu garaawul. loolu garaawul amul benn solo li am solo dañuy ñaan yàlla ma daan ko si kàttan yàlla suñu borom. non léegi léegi kaay leen léegi kaay leen kaay leen Matar kaay euh, kii Bas kaay man maay jaar si yow yaa yaa ko ne léegi xamuma moom mu ne xam na la man mii xamuma xam na ma si biir wax nii mais xaw ma na ne xam naa xam na ne xamoo ma suñu bëree pare naa la wax lu tax man la xam naa la baaw la man suñu bëree pare man la wax nii la xam naa la wala xaw yow nee nga xamoo pare nga bëgg nga xam la xam naa la te bu bu suñu bëree pare di xam ne xam naa la buñu bëree pare nga wax ma dégg buñu bëree pare mais kajoor ngeen dëkk ci nag dama ko dégg mu ne moom Thiès la dëkk déglu ma la moom Thiès la dëkk man mii di wax ak yow samay bàjjen a ngi Thiès ak samay papa di nuyu waa Thiès gépp comprend nga moo ëppale wu ma Thiès dara. dama fay ñëw kon ni ma ñëwee. Uh-huh. waaye Kajoor bokk Kajoor teewuñu bare parce que day lu mu am këram lay yóbbu man lu ma am sama kër laay yóbbu. Uh-huh. di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm nafal ko cat. bala 18 mai mu ñëw ma daan ko jël bu rey ba mu mais xale bi dafa bëri feer nag ci bëre de garga. man wax dëgg yàlla bëre jaaxaluma. ah du ma ko sax sóoraale wallaahi. sóoraale woo bëre. wallaahi sóoraale wu ma. barke Serigne Saliou man maa sóoraale wu bëre barke borom Touba. waaw ah. kii bu ñu bëree ba ñëpp xam ne cuune la Ah. <laughs> wallaahi. ba da nga ko bëgg a weer su ma la déggee. yàlla xam ne suñu bëree ba pare ñëpp xam ne cuune la. déggoo li ma la wax. Ah. fii la koy waxee rek ambulance. day wax nii rek. man la fii nga waxee rek. suñu bër moom tey bu bu demee Thiès ga mu dëkk. Uh-huh. tey dina dégg beneen version bokkut ak bi muy wax nii. waaw waa Thiès nañ ko ne am nga mbër. dinañ ko yab bu baax. ku jël te liggéeyoo. waaw yabuñu la. waaw yab say mbokk la. te yow yaboo say maa. déedéet ñu may yab. faaw ñu hmm. may wax may xam nit ku ñu wax doo xam rek doo doo doo jariñu mais faaw ñu may teg si axe may tegu si axe. mais ñaar bu bëri bi jaxasoo ngeen war yu bëri jaar ci suuf. ngay gis bëri bu rëy. su ko rogee euh, fu coow lii mu mujjee. déggoo li ma la dama koy daal jël bu rëy si kattanu yàlla suñu boroom day ñëw ma ganale ko. xam nga Thiès dafa sori kattanu suñu borom. di woo ndaw papa ndaw maa ngi lay woo. ah léegi de mën ngeen a woote. waaw woo man man maa ngi woo képp koo xam te ne rek. yaa ngi ñuy jàppale di leen wax ni combat bi taxaw na li des bëreetul. Mhm. di nit wax képp koo xam ne yaa ngi may ñaanal aussi maa ngi sàkk ci yow nga ñaanal bu baax a baax am naa combat sama diggante ak ambulance. Mhm. yàlla may ñu wér ak fekke ak tal. di sant sama famille ñëpp nag. di sant sama soxna sama goro. Mhm. di sant sama bàjjen maam say sekk bu baax. ah sama sama sama yaay. ci mbaan ñeng waa Dalifor yëpp maa ngi leen di woo ginnaaw raay xam nga Parcelles Assainies Guédiawaye di wax ni combat bi taxaw na di sant nag ñi nga xam ne ñoom laa àndal. Mbacke Faye ah Papa di sant sama gars yi di wax ni combat bi taxaw na képp koo gis rek maa ngi lay yëgal ni la Garga 2 am na combat digganteem ak ambulance bu Thiès ñu ñaanal ko bu baax yàlla may ko ndam. looy wax waa jàmbaar production. waaw waa jàmbaar nag di wax sponsor yi ñëw jàppale ko. surtout parce que tamit li ñu def ci làmb yombul. na mm-hmm. sponsor yi ñëw jàpp ci. Mm-hmm. ba fu ñu bëgg a yóbbu làmb rek ñu yóbbu ko fa. Mm-hmm. PGD bi muy Mansour Ba. yàlla na ko suñu defal ko jàmm. ak mm-hmm. xéewal ak sutura. Mm-hmm. du nuyu staff jàmbaar production bi yëpp ah. waaw am na solo yow itam looy looy tàggu. parce que euh, parce que balaa ngeen a kii dinaa jox kee mooy tëj quoi mais dama bëgg ngeen tàggoo ma jox promoteur sama mbokku Baye Fall yi. Mm-hmm. ñi xam ne ñoo may jàppale sama combat waa Thiès gi yëpp. nuyu sama mbokku Tijaan yi. nga xam ne waa Jogo tamit. ñooñu duñ ma seetaan benn yoon. waa Thiès. li ñu gën a jàpp rek nañu gën a jàppaat bu baax. waaw te xam ni sama combat Garga 2 taxaw na. waaw combat bi ngeen doon xaar. waaw taxaw na si kàttanu yàlla. di gën a ñaaxaat nañ gën a jàppaat si suuf ma gën a yëngal. nga gën a yëngal. ma gën a yëngal te day gën a yëngu. day gën a yëngu pour yow baax. le 18 mai day gën a yëngu. incha allah si kàttanu yàlla suñu borom. ah waaw te xam ne xale bi. waaw daa yàgg si yoon bi. ok gis dégg. bu baax. fu mu nekk nii nag. gone màgg na gune màgg na trop sax te ci fii nga bëgg a wane sax màgg bu baax ci kàttanu yàlla suñu borom ba bés ba looy looy wax waa jàmbaar production ñoom waa jàmbaar moom dama leen di gën a dollee rek parce que am booy ñaata licencié moo fi ne bari ah, na bari na waaw waaw ñoom bu ñu duggee ba léegi waaw booy déggatoo ay agressé déggatoo ay sàcc déggatoo lii mm-hmm. parce que ñoom ñu ngi def seen devoir mm-hmm. ñu ngi ñuy jàppale daal jàmbaar waaw bu ñu demee bay xool leneen bu ñu xalaatee ñoom dañuy bàyyi gisant yi dégg ah. waaw man leen fi ngeen jàpp gën leen koo dool rek te xam ne ñun ngeen di jàppale am na seeni ràpp rek lañu jaajëf waaw waaw aja dem leen toog ma ma jox léegi promoteur bi nag moom mooy euh, assurance toogaat leen il faut toogaat la quoi toog leen dimanche maa ngi nuyu ñëpp di nuyu journaliste si du nuyu staff ñaari mbër yi di nuyu waa jàmbaar production di leen di leen remercier di leen gërëm di nuyu journaliste yëpp waaw. tey bés bu mel nii parce que da ñëw jóge ci indi ñu fan yee combat bu Modou bu Yoff ak Dame bu Parcelles tey ngeen indiwaat Garga bu jàmbaar ak euh, Ambulance bu Thiès. boole ko benn journée. lépp benn journée la. waaw. dinaa la daw te des na. yeneen combat espoir yoo xam ñu ngi si démarché yi ñu ngi si sori nañ si lool sax am nañu yaakaar semaine yi di ñëw yeneen ak yeneen dina taxaw waaw incha allah. kon gala lay doon des espoirs lay nekk gala des espoirs dañoo li liñ def si franc soq def ko si Paasaw Siteu def ko si journée bi def ko journée bu rëy promotion bi doy lépp doy incha allah ñu def ko journée bu bu bu mucc ayib def ko gala des espoirs dix combats espoirs lañ bëgg. waaw dix combat yëpp nii lañ bëgg mu mel. incha allah waaw. Hmm. looy wax lay mel di remercier staffu ñaari mbër yëpp. muy muy staffu ambulance di staffu Garga 2 parce que combat bi mun naa wax combat bokk na ci combat yi gën a neex a taxawal. Ah. bi ñu waxtaanee Garga 2 mu d' accord dañoo waxtaan ak kii automatiquement mu d' waxtaan bi mun nañu wax matul sax journée. comme ñu ngi ñu ngi remercier ñaari staffu ñaari ñaari mbër yëpp di wax gars yi jàmbaar production ñu ngi waaj lu am solo di wax sponsor yi ñu ñëw ñu liggéey buñ ñu wóoloo ba jox mu seen bopp dinañ leen defaleen liggéey bu mucc ayib incha allah si kàttanu yàlla ak mbaaxam di nuyu jàmbaar production ñëpp ñëpp di nuyu Mansour Ba di nuyu suñu maam Père Ba waaw du nuyu ñëpp. waaw bala ñoo bala ngeen dem ngeen ñëw photo wu nii kon gars yi noonu la demee kon combat bi le 18 mai lay doon Dame Sène dana dana fa bëri ak ki nga xam ne ni moom mooy Modou Dia des na yeneen combat yoo xam ne dina toll ni Garga ak ambulance kon jàmbaar production mention spéciale waaw signature bi waaw il faut ñu def signature ba pare loolu ay image la gars yi jël leen signature bi les ménages contrat yee nekk noonu kan moo fi yor bi woyul père Babou day signé Pape Mbaye signé waaw lii mooy li lii mooy ku lekk avance tëdd pom lii mooy ku lekk avance père Babou day signé mook mbërëm père Babou nag yàgg naa signé mbër wallaay père Babou rek ba kii ay père Babou père Babou bés bu mag bu ne signé na ko yàlla na fi yàgg te wér <laughs> Pape Mbaye signé noonu moom itam di doomu Thiès Pape mooy signé noonu ci turu ambulance aja tegal ma ko nii ci kaw voilà léegi jeex na léegi ñaari mbër yi kaay ak promoteur bi ci kanam pour UMAS waaw